doomu Sénégal sax gis nañ li fi xew ci xew boobu. mais après après la jaba ji woote daal di ah. terle loolu. Ah, mais mais ñu ngi xamal ni waxtu wi si des euh, bareetul te bëggoon naa tamit ñu waxtaan amoon na yeneen point yu ñu waroon waxtaane waaye oustaz mhm, mhm. ñu jeexal fii rek muy euh, déclaration xalif général des Tidiane di xam le ni ndaw ñi dañu war a teel a takk soxna ndax mhm, loolu da leen di tax ñu doon teel a responsable ci seen ay jëf oustaz vite fait rek ci ci ci ci ci loolu waaw teel a takk soxna daa baax ci ndaw takk soxna Mhm. waaye yamul foofu de. xalifa mhm. bi li mu joxe ci ziar général dafa bare bari bari na mhm. nee na na góor ñi na jigéen ñi sëy yi waaye na góor ñi takki soxna. loolu kay mooy li yonent bi saa salaam wax. yonent bi dafa wax ni ku ko ci mënti yéen te attan ko te mën ko. na nga góorgóorlu nga dem lu tax kay yéen xale yi jigéen ñi ngeen lànk ni du ngeen am borom kër ba pare di xaar milliardaire te yaa ngi ak cinquante ans. wala doo wujjee. wala soixante ans. wala ngeen di doo wujjee am na ñoo xam ne màgget nañu ba pare. yow màgget nga ba pare dangay xaar ay millions. mais màgget nga ba pare yow nga ni million ngay xaar pour sëy mais màgget màgget màgget wërsëg fu ne lay jóge nag mm. mais dem nga ba toll ci yenn âge demal sëy comme yow mm. wanteer nga teg nga sa bopp ci taabul bi ci tali bi ba tàyyi te li nga bëgg sa prix jotoo ko mm. demal sëy gis koo jaamu yàlla nga dem jaamu yàlla ci moom xale yi nañ dem sëy yi dem sëy moo gën joxe sa bopp dem sa yi moo gën jaay sa bopp dem sa yi moo gën wili pande sa bopp dem sa yi moo xam nga yii yëpp ñuy def nii jël seen bopp seen awra yi di ko wane ci téléphone yi ñàkk am jëkkër la rek mhm. mais ku a am jëkkër am ko leneen looy tal lu dul di wili pande sa bopp mhm. man daal li ma leen ci wax mooy am na ci loo xam ne rafetul. am na ci loo xamante ni ñaaw na. xalifa bi nag li mu joxe Pa Matar Kebe wax ko ñun ñëpp teg nañ ci seen bët presque mën naa ni am na dix neuf points yoo xam ne lépp dafa génn génne euh, bu ci nekk dafa arrangé société bi. Mhm. ngir lan nañu taxaw. emploi des jeunes amul lu mu tuddul normal say wayjur amul lu mu tuddul mhm. takk leen yéen góor ñi takk leen yéen mhm. jigéen ñi dem leen sëy loolu soxna Fatou. li mu ci wax bari na bari goo xam ni li war rek mooy topp ko Mm-hmm. te gën koo jëfee. Mm-hmm. man loolu rek laa ci conseiller jeunesse bi. macha allah Oustaz Oumar naka nga gisee euh, discours point boobu noonu ci discours bi xalif bi def. voilà di ko rafetlu rek parce que soo xoolee en général ñun at yi nga xam ne am nañ ko actuellement suñu ay waajur ñu koy am. am nañ soxla wala boog ñeneen ñi am nañ jëkkër. mais malheureusement da ngay gis Sénégal léegi da ngay dem ba voilà une trentaine voire quarantaine d'années. doo am soxna doo am njaboot e je pense que képp ku ko def doo ko réccu loolu la ñu mag ñi wax soo teelee takk soxna dangay nekk nit ku responsable mhm. yu si bëri dootoo si dugguti dina la permettre tamit loo waruloon a def dootoo ko def mu nekk lu nga xam ne lu am solo la d'autant plus que ki ñu ko digal dafa nekk ku nga xam ne voilà wéeruwaay la référence la guide la fi nga xam ne mooy Sénégal daf ko def rek pour askanu Sénégal am benn changement bu nga xam ne war nañ ko fi am mais tamit lu oustaz wax moo ci nekk mhm. soo demee ba am soxna yu ci bëri dootoo ko def ñaaw TV dootoo ci nekk mhm. ay loo motif ak leneen soo demee voilà ba am sa soxna keneen ki tamit am jëkkëram yu ci bëri du ci dugg mais xam naa temps bi jeex na mais man fi ma bëgg rek ñu daaneelal fa ak oustaz mhm. mooy visite bi nga xam ne la conseil le président du conseil européen def mhm. na ko fii di mhm. Sénégal mooy mhm. Charles Michel ah. ñenn ñi sax di ci wax ne góor jigéen la mais ah. moom dafi ñëw en tant que représentant Union européenne donc loolu est-ce que war na mën a andi polémique Sénégal su fekkente ni góor jigéen la te leer na président bi leer ki nga xam ne mooy Sonko mu leer leen ñi ki ki ñu góor jigéen la ak ñoom li ñu wax sénégalais amuñu droit recevoir ko palais sama gis-gis la nag dama ni. bu fekkente ni góor jigéen la. ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoo système bu bees bi li ñu ñu wax ñun. Mhm. fas yéene koo dunde te mu leer leen ñoom góor jigéen la. amuñu droit recevoir ko pale ndax ab julli du toogandoo góor jigéen. te ñooñu jàng ñoom jàng nañ ko ñoom ko gën a xam. Mhm. ay intellectuel lañ. Mhm. kon loolu gis naa ñu bari di ci sànni xeer. mais góor jigéen moom leer na leen ni góor jigéen ki li ñuy recevoir. l'islam may mais bi ko fi andi en tant que ah, représentant de l'Union européenne. waaw bu boobaa. su nga. comme problème parce que waxtaanee wuñ fa loolu quoi wàllum économie coopération moo ko fi andi très mm. bien bu fekkente ne nag waxtaanee wuñ fa mbiru lu jëm ci loolu moom waxul lu jëm ci loolu mais ñoom leer parce que problème bi fi mu ne dafa sew mm-hmm. lu garaw laa lay wax mm-hmm. bu fekkente ni ñoom dalee na leer na leer de ni kii ñuy recevoir góor jigéen la charia mm-hmm. mayu leen ñu toogandoo ak moom charia nag laa même suñu waxtaanul ci loolu même bu ñu waxtaanul ci point boobu l'islam mayu leen ñu toog di discuter ci loolu parce que l'islam da la dul kuy góor jigéen nga koy fréquenté loolu moom lislaam mayu leen ko bu fekkente ne nag jamono ak ak ak ni àddunay doxee diplomatie moo leen ci yóbbu ngir beneen def ci yeneen domaine loolu nag mën na ñoo def ay maslaha ay négociation seen biir mhm. ba trouver solution nañ débattre mais bu fekkente ne daal li nga xam ne ñoom kaas nañ ko wax ko avant ñu yor réew mi loolu ña nga ca logique boobu lislaam bu dee ay nit lañ ñoo xam ne ci diine rek la ñuy dox mhm. ah l'islam de mayu leen ñu toogandoog moom xam nañ ñu góor jigéen absolument loolu nekk na ay kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo la bëggoon nañu gën a xuus ci wàllum politique yi mais mm-hmm. temps bi mayu sànq sax fi ñu doon jeexalee ma koy wax rek ku puudar ak pastalu du tax a rafet boo ñaqee ñaaw Eh. dëgg la oustaz puudar ak pastelu li tax a rafet. temps bi temps bi boo ñaqee ñaaw. jigéen ñi nañu dimbali ci puudar ak make-up sonnal nañ ñu ci te ay mag ñu ci bari ay màgget lañu. waaw oustaz sëy daal ku leen bëgg na leen wax nañ sëy. yàlla baax na dégg ngeen li leen oustaz wax comme leer na mbokki xaytu internet yi balaa ñuy tëj oustaz sa sa dernier mot bu dul dernier mot. waaw xanaa rek eh, di wax rek ñëpp ñu xaar ñu ci nay leer incha allahu taala. tous les vendredis émission boo xam ne eh, tous les vendredis ah. à midi waaw à midi incha allahu taala. incha allah yàlla defal ñëpp jàmm te defal ñëpp. jërëjëf oustaz kontaan naa Ouma voilà di jaajëfal oustaz kaddu yi nekkoon na kaddu yu am solo waaye tamit di la jaajëfal ci présentation bi comme ni ñu ko waxee sànq rek mu nekk émission bu bees bu nga xam ne tous les vendredis dañ koy amal waxtaan ci lépp lu nekk ci actualité nationale bi. Mhm. jërëjëf mbokk yeeg xaytu internet yu ñu doon suivre un peu partout dans le monde à travers Walfunet nuyu nañ leen ah, ah, santaat nañ leen bu baax a baax di leen gërëm di leen remercier ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu euh, di leen wax ne bu leen fàttee di aimer di abonné tey di partager chaîne YouTube bii di Walfadjri TV rendez-vous vendredi prochain incha allah euh, d'ici là portez-vous bien jërë ngeen jëf et merci beaucoup ñu ngi remercier aussi ñi géré woon